Seydina Mohamed muy jour boo xam ne dañu financé waat dolliwaat financement jigéen ak Kaolack yëpp nga xam ne dañu formé ci réseau des femmes de l'IMSEC ñu tudde ko suñu bopp àndandoo dóorandoo xàccandoo bokk ndey bokk baay xaalis bi 400 millions puisque joxoon nañu 200 millions dañu dolli si waat tey dañ doole si waat tey à hauteur de 200 millions. ñaata nit ñoo ciy am. presque 200 plus. xanaa ñu góorgóorlu ñaax seen bopp te gëm seen bopp soo gëmee seen bopp rek incha allah fi ngeen bëgg a àgg danañ fa àgg dañ naan banque dañ ko ragal mais institution bu mel ni UMSEC nga xam ne taux d'intérêt dafa tuuti danañ la former encadré la gunge la ba nga taxaw ba mën a jot sa formation mën a jot sa financement nga xam ne soo ko jotee dañ la gunge ba nga def ko ci du seen. bëri na ñee ngi jaay. ñaa ngi def euh, céréales locales ñaa ngi def aviculture lépp loo xam ne mi ngi yëndu di gérer nekk génératrice de revenu nga xam ne jigéen ñi mën nañ ci am koom-koom dimbale seen bopp ñu ngi ci. jigéen ñi ñu ngi ci marché yi ñu ngi ci luuma yi ñu ngi ci taabal yi ñu ngi ci fu nekk rek ñu nga fa en tout cas loolu maa ngi jàpp na bu ngeen ci àndee ak fulla ak ak jàppale yii ñu leen di jàppale mais bu yàggee rek ku nekk mën a demal sa bopp. tout cas pour ba a guddal parce que am na ñeneen engagement yu nekk suñu kanam lii dafa nekk lu rëy ci ñun rek moo tax ñu dagg suñu programme yi ay surtout mii mi ngi woon ci ay programme man tamit ni ki noonu waaye ñu dagg ko pour ñëw ci directeur général mi wan ko ne ko li nga nekk saf nañu lool li ngay def tamit intéressé nañu lool ni ngay jàppalee jigéen ñi neex nañu lool loolu nag mooy gëm-gëm mooy bëgg-bëgg mooy politique bu président Macky Sall président Macky Sall dama wax ne li mu ubbi ci ay bunt pour nit ñi jaar ci pour am ay yomb yombal pour liggéey benn président mosu ko def ci Afrique c'est la vérité tey ci bëccëg ci cérémonie bi président nekkoon ci Tiwaawoon ku déglu lu ko sëriñ bi wax soixante ak bisab tey dama ne lim defagum ci réew mi ci ay yombal ci ay jàppale kenn def c'est waaye nag dafa mel ni tey jëlaat nañu ay leçons yu bees dees ci xalif général Tijane kiy wax di attaqué wala kiy wax kan la pour nga war koo tontu kan la koo xam ne jëmul fenn du dara boo ko tontoo mooy ne yaa ko wax na ko sama nawle nga. dama ne bisu tey bii képp kuy nit jëlaat nga leçon bu bees ci la xalif général de Tijane Serigne Babacar Sy Mansour ku jëmul fenn deful dara. boo ko tontoon wala nga di ko tontu bu yàggee nga mel ni moom defar rek wax na président ne ko bul yàgg mukk ba nga génn ubbi sa gémmiñ gi di tontu kan ngay tontu booy tontu kan xale buy tëgg ay pot xale buy fo kooku ngay en tant que chef bi kooku ngay taw di ko tontu donc maa ngi leen di wax ne na ngeen continuer am fula na ngeen am fayda na ngeen continuer seen liggéey yi na ngeen continuer projet yii ñu leen di jox ngeen gëm ko liggéey am boole ci fulla ak fayda pour ngeen mën a jëm ci kanam parce que ki leen di dimbale jox leen wax na léegi na am na lu leen joxoon wax na léegi na ñëw na pour dolli leen bu amutoon ci leen yaakaar wana wane wu leen ay exemple yu baax du leen dolli xaalis loolu nag bu leen ci kenn jëlee nekk leen ci loolu bàyyi leen sama glace góor gi ñuy parler rek yéen ngeen nekk ci liggéey bi am